waaw euh, xam nga nag yenn saay nit ñi seen xol dañuy bon yenn saay yi nag nit ñi seen xol dañuy bon parce que man suma ma mënul dëkk kenn mënul dëkk man gàbbal sama mam man faralamb suma maam galañ la judduwaale dafa bari xam-xam dafa mën a dëkk su ne baj géwél maa tax kon man suma mënul dëgg kenn bu mën dëgg man gàbbay sama maam biram gunju mama Njaay pend jooju mi si jumaay sëriñ ànd ak mataal si la xarit yëpp ñu boole leen xare ñu sil leen jumaa ci man suma kan kendo mënul dëgg kenn du mën dëgg man dëgg dama si làkk dama si wax parce que dama ko jàng yore gala ñun dëgg daaw di dëgg rab yi ak jinne yi lu leer laa lay wax ko ko di si def lu neex nag di si dëgg lu neex di duma ku ma neex si dëgg duma waaw waaw kooku suñu secret la duma ku ma si tooñ duma la maa ngi wax télé di ma gis ñëpp di ma dégg ma xam galañ bi bu wër

dama ne la suis là, la là, moy suma mam man dama là, je suis là, amul def te nit du ko dal non parce que xamul là, non non non amul salaire non non attends non attends amul salaire amul orchestre salaire xolal lola suis là, la dama la man dama fi 1200 francs visa la commencé dem Amérique ba suis là, pour nit Je dama bëgg nit ñi xam Sénégal man dama gëm suma bi ma yore xaalis ñu bari yorewuñu xaalis Ford Toro maa ko fi njëkk inti bu dee oto jële ko Amérique muy noir et blanc ñu fay mu si douze millions ma bay bon dollar nekk deux mille xaalis bi ma ko téyee nit ñu dégg wax waxuma feru xaalis xaalis affaire yàlla la yàlla moo koy joxe yàlla moo lay xañ boo dëgëree da ngay am li nga bëgg maa ngi lekk nag maa ngi naan ma neexee voyage man maa bëggul tukki mais bu ma neexee mën naa dem ambassade bu ma dem ñu jox ma visa man 1200 francs laa commencé tukki mosuma def dëri Europe foo dugalee suma passeport mu génne la visa bu ma mës a am dans le monde entier dem naa fa bu ma bëgge visa léegi bu ma demee kenn du ma enquête damay dugal sama passeport ñu ma dem tukki maa bëggul woon tukki depuis boobu ba léegi maa bëggul génne zéro mètre maa ko bëggul ma bëgg gérer suma bopp defal suma bopp tax surtout ba <laughs>